dañuy bëggoon a waxtaan ak yow rek ci wàccaayu màggal gi mais balaa loolu ñu bëggoon wax rek nga defal ñu fàttali tuuti ci sëñ Touba ak sunna ndax léegi gis nañ ay menaces salafistes yu bëri Sénégal ak ak yeneen réew yi ko wër donc ñu bëggoon rek nga waxtaanal ñu wala nga defal ñu ay fàttali rek ci sëñ Touba digganteem ak sunna. jërëjëf wax nga lu am solo e, Cheikh Al Khadim Cheikh Amadou Bamba li ko tax a jóg. tam wax ko ci ay mbindam yu baree bari leeral ko itam ci ay jëfam moo di e, dund sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak maanaa dundal ko loolu mooy li tax a jóg Cheikh ahmadu Bamba mooy déclaration bi mu wax ndax eh, engagement la jël boo demee ci téere bu ñuy wax eh, bidaayatu suluk li mu jaawarati malikil muluk muy premier muy étape am yi nga xam ne ci la jaar pour am ngërëmal yàlla dafa wax ne jaar na ci ñu baree bari jaar ci yu baree bari ba xëy na 1813 lay war a tollool euh, wala 1913 damaa jóg ci dat bi mu wax ci la walbatikoo nag euh, xam ne li wér daal mooy bàyyi wan gannaaw lépp te tënku ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa da ko bind parce que dafa wax ne fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa amali wa xawliya bi ma jógee sama parcours jaar naa ci borom xam-xam yépp kenn ku nekk ak nit yàlla yi pour kenn ku nekk ma jaar ci yow xool programme bi nga doon jëfandikoo la ma ca jàpp ne lii kat lu ma amal njariñ la lu ma mën a àggale ci yàlla jël naa ko pour bañ a sànq sama temps ci lu dul lu dul kii parce que ñi ma ëpp expérience jaar ci yoon pour jaar ci ñoom jariñoo seen expérience damay noppal mu ne àttan attan saraftu ama ay attan saraftu attan saraftu ama ay sin ila xidmati xayril alamina zil ulaan muy ci date boobu treize nag ci laa wëlbatikoo nag e bàyyi ñëpp nag faf ne dan na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yemale sama lépp ci yonente bi mu ne lu ko waral mu ne kon mu daal di wax ne e nga xam ne sax am na xasiida beneen bu mu taalifaat boo xam ne sax dafa mel ni e saaru tuub la ko tuddee ah xasiida bi moom maanaam ba tey mooy mooy mooy mooy xasiida bi ma daa mooy xasiida tawbat nasoo ba wo la ko tudde e dafa mel ni sax tuub la ko la ko la ko la ko la ko la ko firee parce que tuubu góor yàlla yi dafa bari xeetu tuub la e ci kaw maanaa loolu mu nekkan di ci sonn lool muy ñooñu mu doon jaar ci ñoom di jël seeni programme di ci sonn te fekk na am na lu ko ëpp njariñ xam nga góor yàlla yi seeni étape yi tuub eh, waxtaane ko du fi xaj waaye boo bokkut ak suñuy étape ñoom bu ñu demee ba duutu ñu defati bàkkaar ñu defate lu ñu yàlla tere dafa amaat beneen étape muy def lu amul njariñ mooy seen première étape bi ci des mooy def loo xam ne ah, am na njariñ sax waaye am na lu ko ëpp njariñ nga yem ci li am njariñ bàyyi li ëpp njariñ loolu duñ koy regretter bu mujj bi nag mooy loo xam ne am na njariñ waaye am na lu ko ëpp njariñ mais li la bàyyi ci lee mooy dangaa gisutan lële mais du tayeel am na boo xam ne li koy waral mooy ah lii am na njariñ lee ko ëpp njariñ waaye vraiment effort bi may def ci lay daa xaw kon naa ko fi yam ci lii nga xam ne kon as tayeel a tax mais bu mujj bi nag mooy li waral nga bàyyi li ëpp njariñ yam ci li am njariñ mooy dangaa gisutoon lële boobu ci la Seex Ahmadu ma nekkan kon ba muy nekk ci jaar ci ñooñu dafa jàppal ne lii rek maanaa dara ëpp ko njariñ bi ko yàlla bi ko sunu borom wanee nag ne maanaam lii nga nekkan am na njariñ lool waaye li ko ëpp njariñ mooy nga nga nga nga nga nga nga jox yonent bi rek muy sa kilifa nga tënku ci programme ci la waxe ne anatisaman bil kitaab wa bi addisil mustafa wa sawab leer na ma naññi rekat mooy ci alxuraan képp ak tënku ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy addis rek mooy lii mooy lii may ak njub moo gën a jub lu mën a doon mu ne kon nag bis tey ubaayi ul yawma rasulal mustafa tey bàyyi naa ñëpp jébbalu ci yonente bi jaayante ak moom ubaayi ul yawma rasulal Moustapha bi xidmatin wa asalullah alofa fas yéene ko liggéeyal di nag yàlla dimbale ma ba engagement bi ma jël ma respecté ko remplir condition yëpp mu daal ni uhaidullah maa ngi maa ngi signé contrat ak yàlla ala axfil kitab bi xidmatin lil Moustapha babi sawab maa ngi jaayante yàlla ne sama tànk fas yéene wu ma koo teg lu dul ci alquranul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi donc kon loola daal di xam nga am na fu waxaat ne it ne loolu moom fi la nekk daal di waxaat ne rajaa u jannati bila taaati bi sunnatil maa i xururun yaati kooku mi ngi ko adressé taalibe yi yaakaar ajjana te tënkuwoo ci sunna rasulullahi ay caaxaan la yeesal gi yeesal fokk ñu bàyyi ci xel du ca génne fent lu yees mooy aw xàll wu màggatan am na benn téere bu ñuy wax ma xaalixu niiraan bu mu taalif ak tasawuda subaan def caa attirer attention ndaw ñi nun la ko nun la ko bind ne maa ngi attire seen attention ne am na phénomène yu nekk ci kanam yu nar a ñëw yoo xam ne dana jaxase mbir yi dana indi andi bouleversement bu doy waar ci réew mi parce que danañ dem ba yoon wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaran danañ ko fi ne kupp bàyyi ko fi fent ay ñel ay ñal te ñal yu ci nekk dañu ay ay panneau lañ ciy def ay indicateur taxaw naa la fii la ndaka noonu yoon bi nga xamee ne gaa yu baax ye yeesalaat gi ko gaa yu baax yi yeesalaat nit muy sa abay ak ñooñu dana ñëw moom it ba daane indication yi ñu fa defan ñu daane ko defaat seen indication yi bopp donc mu ne bu boobaa nag loola nag mu ne bu boobaa li leen di jariñ yéen ndaw ñi mooy ngeen delluwaat source yi muy delluwaat ci alxuraan ak sunna. source yi fa laa bëgg a taxaw sax ndax bu ñu la déggee léegi cité nga ay ouvrage yu bare bare bare bare. dëgg la donc tey ku la xam-xam ni am na liggéey bu am solo bu doon def ak sëñ Sam Mbaye. Hmm. ci ouvrage yu mel ni Masali. Hmm. ñoom ñu ci ñu ko traduit français foog naa ci nga bokk. waaw ah, dëgg la ma doon laaj liggéey boobu fan ngeen ci toll tey ci ouvrage bi sëñ Touba Baye. waa xam ci transcription bi en wolof wala en français ak informatisation fan ngeen ci toll ci loolu. tabarfakal la kooku am na liggéey yu rëy yoo xam ne. daayiratu Rawdu Rayaahiin ñi ngi ko ciy def liggéey bi ci jëkk nag liggéey bu yaatu la mooy ouvrage sëriñ bi ci boppam li nga xam ne moo ko bindal boppam mu jëm ci ci nit ñi dañ koo reprendre at mu jot danañ jël benn téere boo xam ne dañ koy commenter surtout sax dañ koy dañ koy jël système moderne bi xam nga bu njëkkaa kilifa yi dañuy da mën nañoo citer rek bu ñu di bu njëkk ba modèle bu njëkk bi da ngay citer rek mais du am bas de page mën nga tudd rek aw tur léegi nag ne lii maa ngi ko jëlee ci téere sàngam léegi nag dañuy fexe ba léegi ñun téere boobu bu ne bu cité benn borom xam-xam boo xam ne ci la référé wu dañ lay leeral borom xam-xam boobu mooy kan ak fan la dëkkan ci yan jamono la feeñal ak maanaa yan bagage la yoroon ba nga xam kooka téereem boobu it ñu wax la mooy téere ban ak euh, maanaam boo ci bëggee dem foo koy amee naka noonu loo xam ne da ko lim bindit moom bu fekkee da ci am loo xam ne tey xëy na eh, buñ ko commenté wul mën naa defee kii ñu def ay commentaire ci suuf bu dee baat yoo xam ne yooyu jafe loolu lañ ko def bu dee loo xam ne dafa daf cee tudd alxuraan wala ab addis yonante bi addis yi dañuy wax naa la yii wér na yii wérul yi wala bi aaye dañ lay siteel aaye bi ñun maanaam ci ban suura la la nekk ak ban numéro verset la pour nga mën caa dem bu dem addis yi ñu wax la ban ouvrage la nekk ci téere yi sunna yi ak dëgëre addis bi addis la boo xam ne yu classé ci yi nga xam ne euh, authentique la yu wér ak nangam loolu lépp mooy liggéey boo xam ne at mu jot ñu génn ci benn téere ba mën nañu wax ne génne nañu ma waaye euh, Masaalikul Jinaan moom la njëkk a génne génne nañ ko génne nañu euh, Mawaahibul Xuduus Eh, war nañoo génn ren jëw aru nafis léegi téere yooyu buñ ko loolu mooy première étape bi deuxième étape bi mooy ñu ñu pour ñu mën ko vulgariser ba mu yaatu mooy ñu ñu ñu ñu ñu tekki ko ci langue yeneen langue li mel française ak euh, langue française ak euh, anglais ak yu mel noonu loolu beneen liggéey la mais li gën a jafe mooy euh, texte original bi suñ ko ko ay arabisant comme que arab lañ ko bind ay borom xam-xam parce que téere benn bu ci nekk. et ñiñ dénk liggéey boobu mooy ñi nga xam ne ci université yu mag lañ jóge ca loolu lañ spécialisé wu bu dee ci droit islamique loolu bu dee ci loo xam ne eh, maanaam lu ñuy wax ne lu mel ni tawhid eh, muy muy la fois ak eh, unicité dañu yu mel noonu yëpp tey lu ci nekk dañ koy jox ñi nga xam ne tey ay borom yi xam-xam lañ yu génn ci ay université spécialisé ci domaine boobu <coughs> noonu xam nga bidaa mooy loo xam ne amul cosaan ci lislaam bidaa daal lañuy njëkk wax noppi mooy loo xam ne amul cosaan ci lislaam waaye tegtaliwul loo xam ne yonent bi jëfukoon ko woon déedéet parce que am na yu bari yoo xam ne yu ñu def yoo xam ne yonent bi defu gannaaw yonent bi nii ñu bindee alxuraan mu nekk benn kaamil loolu amutoon ni ñu bind sunna yonent bi da wax naa bi ma fi nekk laa taktubu ani shay'an bu leen bind ci man dara parce que da doon bañ liñ bindi li ñuy bind li muy wax mu bàyyi ko ci moom mu jaxasoo ak alxuraan kon am na lu bari loo xam ne gannaaw yonent bi la sahaaba yi ñëw xool ne jamono laaj na ku ñu indi ko mais nag dafay fekk loo xam ne du génn biir lislaam muy dañuy définir màggal mooy lan pour ñu mën a xam biddaa la màggal nu ko boroom tudde muy sant yàlla sant la ko tudde alxuraan boo ci demee li nga ci fekk ci ay ay yuy digle sant la in shakartum la azidannakum wa in kafartum in asabi la shadid bu ngeen ma santee ma dolli leen su ma leen mayee lu tax nga sant ma ngeen ne lànk santu leen ma ma sanctionné leen wa amma bi nihmati rabbika fa lépp lu la yàlla may ci teraanga nang ko nang ma sant ci waxtaane ko ak feeñal ko donc sant dafa bokk ci principe yi l'islam yi nga xam ne danga koy fekk ci biir alxuraan fekk ko ci sunna fekk ko ci fune kon sant yàlla di ndigalul yàlla mënta nekk ki sunna bidaa mooy loo xam ne yàlla yàlla diglewu ko yonent bi diglewu ko nga def ko nga xam ne mënoo koo fekk ci alxuraan mënoo ko fekk sunna waaye loo xam ne tey man ngaa wax ne al aaye alxuraan bii moom ma ko sant wala sunna kooku mënta nekk bidaa te maggal sant la ndax borom ci boppam moo bind moo bindal boppam ci benn xasida bu nekk ci biir fulku wax màggal ne maanaa jubluwuma ci lu dul sant yàlla waxit ni ñuy màggale moo wax ne katabtu yawma sabti inda galwa baada jihaadi wa firaaqi balwa bisub samedi samedi dafa lié lool ak kiiw sëñ bi samedi la fi déparé woon samedi la ñibbisi li li samedi la liggéey bi jeex moo bindal boppam katabtu yow ma sabti la wax bin jël naa sama xalima ci bisu gaaw inda galwaa ci raas bu ñuy wax galwaa ca Gabon lan laa bind damaa ñe alhamdulilahi maa ngi sant yàlla allati yàlla mi nga xam ne xadrada liyal ida wa xaadalil arada maa ngi sant yàlla mi nga xam ne nottal na man noon yi tàggatal ma leen ba liñ jàppan ci man ñu bàyyi ko yàlla wan leen na ñoom ñoo ma tooñan yàlla génne nooneel gi nekkan ci ñoom li nga xam ne it moom laa dugalan ci biir liggéey bi ñaanaan ko yàlla ci wéetaay yu ma nekk fii pour liggéeyal yàlla liggéeyal rasulullah ci wàllu jaamu yàlla ak bind ay ouvrage yi téere yoo xam ne lislaam dana ci mën a dund ñu mën ko cee leeral ci génération yi ñëw loolu yàlla lépp maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne matal na lépp daan ndax fustu la daa jalwaa wa inda baxfali bi maa bi uniiru kulla maxfal parce que nee na fii ma nekkan wéetaay yi ma fi amoon permettre na ma ma liggéey fi liggéey boo xam ne maanaam dana nekk ab lumière boo xam ne planète bi yëpp dana fa dem leeral fa sunna yonent bi sallallahu alayhi bi maa bi uniiru kulla maxfal mu ne kon bu fekkante ne man damaa génnan pour di yaxantu ci di def commerce mais ni tey damaa nekk ab immigré moodu moodu bu doon yaxantu ci kon bu fekkante ne damaa génnan dem ci marché bi yàlla bu nekk extérieur doon am lu may wuti pour yóbbu ko Sénégal kon la ma taxan na jóg am naa ko mu ne rabixtu fii tijaarati fii xurbati mu ne commerce bi ma doon def à l'extérieur am naa ci bénéfice bu baree baree bari kon nag lu ci des wa askurul mukrima inda yi kon nag su ma retourné ba dellu Sénégal danaa fa sant yàlla ci lii ma defal xam nga kon leer la mu ne waaye mu ne kon alay sukru mu ne na nawaytu sukrahu ba ci indi gi ñu indi màggal gi Touba bindal na ko ah, mais moom bindal na ko moo wax ne nawaytu sukrahu lada daari salaam wa inda tuubaaye bi jismin wa xilaam am naa yéene digg ñaari barab yi nga xam ne falaa doon ñaana yoon wi ñooy barab yi ma njëkk a sanc ci jamono bu ma delloo ci millier boobee danaa ko fa sant am naa yéene sant ko fa Touba ak Daaru Salaam nawaytu sukrahu la wax la da daari salaam wa inda tuubaaye bi gis min waxulaam daa di wax it cant gi nu mu koy defee du nekk ay caaxaan du nekk fo déedéet daa ne alay sukra o bi far din wa sunnan sunna daal di ñëwaat engagé na ma ci yàlla ci sant fa yàlla cant goo xam ne ci def lu yàlla farataal ci alquran wala lu yonent bi sunnaal ci addis rek laa fa fas yéene def kon kon kon kon loolu leer na kon kon leer na ne màggal gi cant la cant yàllaa ko sant ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye rawatina nag na ngay sante mu dëppoo ak alxuraan ak sunna ndax mën ngaa sant ba noppi tudde ko sant ba noppi mu juyoo ak alxuraan waaye moom moo wax ne moom engagement bi mu jël mooy sant gi du ci def wala mu wax ci dara lu génn alxuraan wala sunna waaye li may tëje rek mooy euh, li may tëje moo di comme li mu wax ñëpp bàyyi ci xel alay suru bi fardin wa sunan jooju képp kuy dem ku ne nga xam ne kan ngir nga mën a am yoolub cant jariñu ci màggal gi mooy boo demee bul fa wax wala nga def fa dara lu génn alxuraan ak sunna mooy na fexe ba boo demee profiter ca sa sa séjour bi ngay am Touba ci jaamu yàlla yokk say julli say naafila yokk sa jàng alxuraan yokk sa jàng xasaayid yokk sa ay awraat ay salaatu ala bi ay istixfaar boo amee sa poosit maanaa ci loo yor a yóbbaale miskiin ak way néew ju doole ya nga fay dajeel nga gën a góorgóorlu ci jàppale leen dimbale leen ci occasion bi parce que ñu bare bari dañoo riire fu ne ñëw fa pour daje fa ak bàyyi defal yàlla yi pour yaakaar ñu jox leen lu ñu yóbbu seen kër dimbali ko seenu njaboot parce que ay way lompañ lañ yooyu yëpp di ay loo xam ne mooy màggal muy fexe ba profiter parce que itam temps bi ni mu xate nga bàyyi sa liggéey fii bàyyi sa njaboot dégg nga dugg ci oto yi lu ne mën laa fekk ci biir yoon wi lu ne mën la caa dal nga dem toog foofa ñaari fan ba nopp te profité woo ci occasion boobu loolu dara jëru ko kon ñu maa ngi dénk sama bopp di dénk ñëpp ñu fexe ba màggal gi ñu dunde ko alxuraan ak sunna jaamu ci yàlla moytu ci def dara loo xam ne lu yàlla tere euh, ne ci itam pour defar ak bokk ak dundal ko boo demee ña nga fay dajal ci ña nga fekk ci ay bokk yëpp nga siyaare ji leen siyaare nit ñu baax ña ñaan fa ci yàlla ña nga fay dajal itam nga gën a feddali sa kóllëre ak ñoom dal yi foo ci mën a dem pour nemmiku sa bokk yooyu yëpp loolu lépp tey mu nekk si la tur ayim boo xam ne vraiment da nga ci mën a profiter ci occasion boobu ba def ci loo xam ne tey maanaa dana jar coono bi nga ciy def ak li nga ciy dépensé